jërë ngeen jëf ñett yéene kay yi mu di observateur du Sud Quotidien wala bokk Libération ñoo bokk ku ñu xëyee mu di Karim wadd doomi Abdoulaye Wade ji doore ko observateur mi xëy dikk ñu ñun ci lile enquête bi ñuy def jëm ci wàllu bien mal ak ki di am am bulewul lewul journal ñu nañu Karim Wade la ko dugal ma nga ca aéroport Ndakaaru ndekete ci atum 2002 ba 2012 gi nga xam ne ca la bàyyam ci bopp réew mi Karim Wade am na fi lu toll ci fukki société ak juróom yoo xamante ne ji ci wàllu aviation civile ca la ñuy yëngu yéene kay dem ca ba jeex jox kaddu gi Sud Quotidien la mu gis moo di Karim Wade la ñu koy toppee la ko doon nëbbu di ko fal mbalaanum kiirlaay mu di masque ba tàmbali naa xotteeku tàmbali naa toj benn benn la mu bëgg a wax foofee moo di Karim Wade la koy daaneel mi ngi ci yoon bi di ñëw am na lenn luy nëbbu la nga xam ne moom la ñu koy toppee kañ lay dem ak loole lan la libération moom xëy ci dikk ak ñun gën ñu koo xamal gën ñu koo leeralal leneen lu war a leer ci procureur bi di sàkku ci mu leer moo di Awa Ndiaye ak kuddu ya ñu ko doon toppee Awa Ndiaye ak karaafam ya Awa Ndiaye clé USB jamono jamuy nekk ca bopp ministère de la famille délégation nañu procureur ba ubbiloon a dossier bi ngir ñu lijjanti moomi le mbir meneen mbir ma fekk ko feneen Thierno Ousmane Sy ci ñi ko xamul mooy ki fi jamono ki daan conseil Abdoulaye Wade ci nouvelle technologie communication yu ni mel moom waa mi ngi ci yéene kaay bi nga xam ne moo di le quotidien bari lu mu fa wax leeral na ko fa nee atum jàpp ba ñetti milliards jot nañu ko viré ci comptam Thierno Ousmane Sy yamul foofee ndax nee na Abdoulaye ñeenti téeméeri euh, ñaari téeméeri million moom Thierno Ousmane si mooy wax loole nee na am na lenn ci ay personnalité yoo xam ne ci Sénégal la ñu nekk ñenn ci Afrique léeg-léeg daan nañ ko jox ay ay mbir di ko di ko jox mbaqus maanaam di ko tibbal di ko beral la ko du sekk mu ñu ne dañ doon def business ñoom ñaar Thierno Ousmane si leeral na fo nee na musuma fàttali ko fu ma defee business ak ki nga xam ne moom moo di Mamadou sekk ma dem ci ki nga xam ne moo di Alioune Badara Cissé ñu naan ko Euh, euh, observateur nañu gannaaw ba ko Macky Sall jëlee ci gouvernement bi moom mi nga xamante ne ji moo newoon numéro 2 bu parti bi di parti APR Alioune Badara Cissé ma nga ñu yóbbu ci Roumanie foofee la ñu ko fa jël ngir mu fay liggéeyee léegi daal ci gàttal bu génnul biir APR it wan na ko ginnaaw borom APR ak parti boobee di APR Walfadjri ci ñoom la xëy ci xët amu njëkk journal bi nañu jamono ji ñu yóbbee kii di Karim Wade ca euh, brigade Colobane doon ko déglu gars yi APR ñëw fa bëgg a fitnaal ñooñu parti démocratique sénégalais yi le journal bi jàpp moo di ndaw APR yi ci boppam ñoom ñoo doon fitnaal seen bopp ñoom seen jëmi bopp la leen dal ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp ñi nga xam ne lii leen di dal teguñu ko seen bopp nguur gi mi ngi ciy jéem ay pexe ñu dem seeti xët mu njëkk la soleil accident yi am ci tali bi bi nañu nguur gi bëgg bëg moo di fexe ba wàññi ko ba nga xamante ne ci téeméer bu ca nekk ci accident daanaka la cay faatu ci nit du dafa jéggeen daye ndaxul ci lu weesu fukki at lu mu gàtt gàtt gàtt ñaar fukki junni doomi aadama ak ñaar ñàkk nañu seen bakkan loolee ñi ngi ko ñàkke ci ay accident ñu dem ci wàllu tàggat yaram ak lambu ji Walfadjri sport xëy ñu xamal ne combat bi war a dox diggante borom taqa ci ripp di tafatine ak Balla Gaye 2 triple S doomi Double Less yëf yi tàmbali naa tàng jër démb lañ leen dajale woon ci King Fahd Palace Hotel yéen kaay bi nañu waaye foofee lañ fa mën a jàpp moo di combat bi moom du sedd ci diggante tafatine ak Balla Gaye ci journal bi Balla Gaye di xam le ne VIP yi ci lambu ji tafatine moo ci gën a nul te bu fekkente ne dafa weddi ne man maa ko mën lépp lu ñu am nañu ko teg dama koy daan jël ko tafatine tontu na ko ndax nee na Balla Gaye dinaa ko corriger te ko palaasam ñi mu daan ñëpp moom Balla Gaye de tafati nee na ay màggat lañ yoo xamante ne dañuy waaj a jeexal ci observateur tafa yokk wax ja lam fa xam le moo di ki nga xamante ne ji moo di Balla Gaye bu xeexee dana ko toroxal Balla Gaye de ba tey waxam mi ngi foofee nee na tafatin la ma waxoon rek moom laa gën a wax ci biir tanoor yi nekk ci làmb ji mu di mbër yu mag yi tafatin mooy ki ci gën a nul wax ji mi ngi ci observateur jërë ngeen jëf